alhamdulilah aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax di nuyu mbokku àddina di nuyu teewaay bi di rafetlu jotaay bi di wax asalaamualeykum wa rahmatullah ñu jàll ci li nga xamante ni moo waral jotaay bi tey muy si ñetti ponk yi nga xamante ni moo waral lii bi ci njëkk moo de ne mbooloo te dañ ne mbooloo ne doole te mbooloo la koy dooleel mooy ne ñi nekk ci ginnaawam ñu xool lu mu laaj ñu xool pas-pas bi ñu xool lan mooy mébét bi ñu jox ko dooleel ko ci ba moom lam cay saaku man ko cay am lii nag defuñ ko ngir dara réew mi tolluwaay réew mi lañ xool am na réew mi toll na foo xamante ni tey ji day laaj képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi di woote di lal basang moo xam basang moo xam der yaa xam loo lal di wootewu ne dangay dimbali ñu ngi la ci woo yaa xam loo ci man ak loo ci manut ak bépp kilifa dañ koy def juste pour dimbali population Sénégal dañ ko def pour juste suqali suñu réew dañ koy def juste aussi tamit réew yi nga xamante ni tey représenté wu nañu dara ci àddina bi suñu réew man see bokk ñu jàll euh, ci beneen ponk bi mooy wàllum football bi dañuy sant yàlla ci wàllum football bi lañ ci daj kooku moom ñun la du dërëmu état du dërëmu population bi du dërëmu kenn parce que toll nañ foo xamante ni tey waxuma la population bi rek mais suñu joueurs yi génne fii ci réew mi di dem bitim réew di football baat yañ leen di sànni kàddu yañ lañ di sànni mu leen di naqari te tey jii tey si télé boo tourné tapé jamono ji foo mën a nekk si àddina dinga fa gis sëriñ dañoo bari bari bari ba nga xamante ni moo xam foo mën a nekk rek da gis sëriñ si site internet yi ci média bi tey nag ñu war a mën a booloo ñun ñëpp ñu booloo doon benn ànd taxawu li nga xamante ni tey jii mooy suñ équipe parce que ñun équipe bi lañ am. ñun ay patriote lañ ay autorité lañ ay citoyen lañ la ñuy def ku ñu ci saaga xoolu ñu ci ku ñu ci saaga ñu ci ku ñu parce que ñun ay sagaru nit kese lañ ay mbalitu nit parce que sëñ Touba moo ñu gën téeméer yoon waxuma la gën sax waaye mbalitam sax moo ñu gën gannaaw jëmu ju tedd jooj la ay nit ñu bon mën a toog ci ginnaaw di ko saaga maa ngi jégalu sax ci ni mu ko waxee asumala ñun ñu xeebu ñi ñun ay jaami xeebu lañ kon lañuy ñuy def buñ ci xool ñooñ la saaga ñun nañ xam lii nga xamante ni tey mooy suñu intention ci réew mi parce que réew mi fu mu avancé ñun la avancé la dafay baax ñun ñi nga xam ñu ñooy population bi ñun ñi nga xamante ni en tant que patriote du président du ministre du kenn ñu jël suñu initiative bopp taxaw lii moo ñu war ci réew mi ci suñ xam-xam ci suñ kàttan ñu doxal ko beneen bi ci topp mooy ne suñ biir ñun ñun ñaankat dëgg la jamono ji ñoo lëmbee dëkk bi loo wax ñu ne vaar sëriñ si loo wax ñu ne nii ñaari soos nag euh, laa ci jàllale bi ci njëkk jëmm ji toog amul fu mu demul ci réew yi ci biti réew moo xalaat fii ci réew yi ci biti Afrique Gisaaso Mali Togo Benin foofa wàcc foo laa ci sant yàlla dinañ la ba man fa ma ne fépp laa fa xam man fépp dama fay liggéey foofu dama fay dem di fa faj dem ba ñoom dañuy ñëw di gëstu sama xam-xam mm. bu dee ci wàllu wuruj ak njuuj ci biti la ëppee te ñi nga xamante ni tey jii ñu ngi ci réew mi ñooñu lañ gën a soxla ñooñu di leen ruuj beneen bi mooy ñun suñu biir te boo gisee ñu taxawal association bi tamit créer groupe bi parce que deru sëriñ yàqu na te ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp nuñ koy defaree nag état moo ñuy mën a may doole. mboolem koo xamee ñaankat la dañ la indi si group bi di nga bokk ci groupe bi ñu xool sa capacité xool sa dayo loolu ñun ñoo koy lijjanti suñu bopp du kenn parce que loolu yoonu état nekk si état daf ñuy may doole daf ñuy may doole pour lu ñu mën a lijjanti si dëkk bi lijjanti ko parce que dafa am loo xamante ni baaxu si ab dëkk teef bu bon la ci dëkk woy bu bon la ci dëkk benn tey yow boo génnee sax da ngay am gàcce. kii di wax mu ne moom kilifa la ñu lire message bi làkkat bi la lay liiroo message bi kii lan la bind nga ne ko aw saaga la gàcce goo xamante ne la sax yow yow rus nga kaa wax ne lii saaga la to lii moo waral tey suñ groupe bi lii moo ko waral mboolem koo xamante day wuruj moo xam képp kuy wuruj di nga bokk ci groupe bi te dinañ la dénoncer carrément kat yow mii nii nga meloo nii nga bindoo lii mooy sa initiative parce que foofu lañ tollu réew mi foog mu jub foog mu tranquille parce que population bi dafa am lu ñu soxla dafa am fu réew mi toll te dafa laaj defar ni ñu jëlee maire yi changé leen xam ne baaxuñ ci réew mi noonu la tamit ñun suñ biir ñu sëriñ si ñu xam ne lii baaxul ñu jël ko génne ko xool li nga xamante ni tey jii moo baax ci réew mi dëgg la ñaan yàlla yàlla mooy nangu waaye yow mii ñaanal nit ki dalay leer biir ne kii ma jàkkaaroo mënul mënul mënu kaa ñaanal pour lan yow nga mën a jël alalu doomu aadama di ko lekk tëdd si nga ne yaakaar ne si di nga nekk si jaamu loolu day dakk day dakk taxawaay bi tamit nag mooy ne képp ñu ngi ci woo képp ci réew mi moo xam population bi la parce que population bi li li ñuy critiqué mara yi yëpp yëpp yëpp tey jii buñ gisee koo xamante ni mu ngi ci lu baax ñoom dañuy ñëw dooleel la kon ñu ngi ci woo ñëpp koo xamante ni tey jii am nga yéene bëgg nga ñoo may doole ci lii nga xamante ne tey jublu nañ ko ñu ngi la ci woo nga may ñu ci doole parce que lii mooy suñu option parce que Sénégal dafa war a bokk si dëkk yi nga xam ne représenté wu na dama lay Cameroun dëkk yu bon yooyu xam ne ay sagru dëkk la macha allah dëkk bu ñu am macha allah dëkk bu neex la dëkk bu rafet waaye dañ représenté wul dara ci Afrique balaa nga koo xam nga génne nga xam ñu représenté wuñ dara dara dara te dañ war a doon dara doon dara goog nag ñu ñoo koy liggéey ñu ñoo koy liggéey fii ci dëkk bi di ci woo ñëpp.